Omar Diagne di Cheikh Omar doon ab chroniqueur doon ku miin ci réew mi sur internet ñu koy gis mais li ci ëpp ci kàddu yu mu yëkkati mooy da koy jëmee ci tarixa yi ci réew mi ak ñi ko jiite bi ci mujj mooy li mu wax ci jëm ci alal ji dugg ci tarixa yi rawatina ci weeru xaram jëm weeru gàmm mu ne liy dugg ci alal ci réew mi takk na loolu waaye alal jooju li neen nemmeeku mooy alal ji daal bu ñu doon wax dana blanchiment alal ju lewul la te maanaam alal ju setul la ñuy dugal ci diine ji rawatina ci tarixa yi ci waxtu woowu jàpp muharam jàpp gàmmu kàddu yooyu muy faral di yëkkati est-ce que nekkul nag loolu amul ci li muy xajamal ci ànd bi maanaam amul suuf si muy xëpp ci cere bi waa loolu day euh, damay njëkk a wax sax naqarlu naa ko mm, gis naa ko ci réseaux sociaux yi comme nit ñi nit ñi yóbbu yónnee dagg yónnee gis naa ko mu nekk euh, loo xam ne neexuma euh, neexuma nag parce Euh, ki koy yëkkati euh, dafa am mm, lu tax euh, neexuma donte jamono yi ci ginnaaw sax gis nañ fi yu mel noonu amoon na fi yaakaar naa man na huit mois ci ginnaaw ba amoon naa ci ay kàddu yu ma jotoon a jël jëme ko ci kawam donte nag neexuma woon sax kàddu yooyu parce que xam nga Cheikh Omar dafa fexe ba bokk ci ay kuréel yoo xamante ne ku ci bokk mënoo lu dul jàppale ko soo sañoon lu mel na tey euh, ànn sàmm jikko yi. Mm-hmm. Euh, wala combat yu baree bari yoo xamante ne tey buñ ko wootee woon man su may dem damay wóor ne dinaa ko fa fekk wala dina ma fa fekk. Mm-hmm. wala boog yu bari bari yoo xam ne dafa may naqari ci réew mi su ma génnoon di ci wax dafa may après di nga xam ne moom dina ci wax wala moom dana wax ma wax. Mm-hmm. Euh, kon ku mel noonu li gënoon mooy buy xeexi yow da ngay bokk ci maanaam bu doon tane tey làmb la tëgg di bëri ji damay bokk ci ñi koy sotti saafara yeeg di ko ngembak di ko jàppale pour bu daaneel. Mhm. loolu moo nekkoon li li li logique. parce que euh, li mu maanaam image yi mu fexe ba am ko di ko jaxasoo ak nit ñi wala boog sax lu mel ne tey télé wal fajjari di nga gis semaine bu nekk dina fay génn nit ñi miin nañ ko ci télé bi comme ni ñu ma fa miinee. Mhm. ku mel noonu tamit euh, boo sañoon euh, day am jàmm am ndam. Mhm. maanaam day am jàmm am ndam parce que fexe na maanaam ci li muy doxal noonu. am na ci ñu baree bari ñoo xam ne mën naa am euh, bëgg lu baax bëgg réew mi ñu ngi ci ginnaawam bu ñu sañoon nit du ko tudd di ko wax naka sudul noonu wala lu mel noonu waaye euh, léeg-léeg tamit lu mel ni comme nii nga wax euh, dafay jar ñu leeral wala ñu wax parce que wax boobu xëy na am na lu mën a jariñ mooy xam nga Cheikh Omar benn man damay njëkk a wax ne bu fekkonte ne respecté na image su am na sàmm jikko yi euh, du génn surtout ci moment yi même bépp moment sax toog amul lenn lu muy wax lu dul euh, kilifa diine yi dañuy def balancement de l'argent ñu ngi koy def ñu ngi koy seqal ñu nekk ay moodu moodu nekk ci bitim réew di dugal ay xaalisu 2 milliards ci compte ne sëriñ bi maa la jox lii maa moom lii après jaaraat ci ginnaaw jëlaat ko Euh, loolu dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekk wax joo xam ne amul xam-xam wax joo xam ne ay sos la wax joo xam ne waxi gone la ba pare dool dolli ci mu newaat mor jamono yu muharram waxaat ne buñ gàmmoo lay yem mu mel ne maanaam comme kuy wax ci été wala benn traite daal buy am boo xam ne dafa legal day am maanaam euh, wane ne ay sëriñ ñoo koy def ay muudu muudu ñoo moom lañ koy seqal mu mel na ñu nekkuñu sax ci état nga xam ne euh, loolu daal dafa nekk wax joo xamante ne lu mat a taxaw la te Cheikh Omar ci boppam tamit hmm, yem ma ci euh, bañ a wax ci moom parce que ànd saamu jikko yi ak Walfadjri mais dafa am beneen côté boo xam ne man tax na mënuma wax ci moom lu bari parce que nit bu fekkente ne yàlla dafa dogal tey ñaari mag yu góor yi mu am muy Kalidou ak Papiko ma xam leen mm-hmm. yaayam muy may euh, Maymuna kamara ma xam ko xam papaam Pa Diagne euh, ba ci rakkam Sabu Diagne mel na Sabu Diagne rakkam xam soxnaam bi mu amoon te tàqalikook moom donc kooku ku mel noonu ah euh, ba ci soxnaam bi mu denc xaw naa ko xam ku mel noonu day jafe nga jéggi loolu lépp mën a taxaw ci moom di wax parce que nit léeg-léeg dañuy wolof danaan dof du rus mbokk yaay rus loolu dafay am. nit ku ne am koo voilà te moom moom mën naa wax ne moom du rus parce que bu doon rus dina rus ma ostaas Maxtaar saar ni mu mel Tiwaawoon ak pas-pas bi mu am Tiwaawoon ak fi ko waa Tiwaawoon teg. ku mel ne baaba Babacar Mbuub ni mu mel Touba ak ni ko waa Touba teg ak euh, li fi jaar lépp nga mën a jël kilifaay ñooñu di jël même bu doon dëgg. maanaam waroo ko wax waxuma la nag ngay jël ay sos di jël ay kàcc. di ko teg ci kaw ñooñu ngir taqal seen der te wax ji man bi ma seetaanee vidéo bi toujours man damay fonk damay jiital information ci lépp dama delluwaat ba ci sit bi mu ko waxee woon dem toppaat émission bi mais ni mu waxee blanchiment de l'argent noonu la waxee ne ay faux médicament sëriñ yi ñoo koy jël di ko def nii di ko def nii oto yi ñuy sàcce bitim réew di ko indi ci réew mi sëriñ yi ñoo koy jël di ko def nii di ko def nii arme blanche fetal yu baaxul yu amul kayit mm-hmm. sëriñ yi maanaam lépp sëriñ yi daal ciy boole sëriñ yi nga xam ne dañ leen a gëm euh, tey topp leen ñu ami taalibe ñu ci bari ay sàcc lañ xam nga loolu dafa dafa dafa dafa dafa euh, kiiwul te boo xamee papay Cheikh Omar xam koo xamante ne waa Tiwaawoon kooku rek lañ fonk faatu na ci ñaari at ñetti at ci ginnaaw maa ngi koy ñaanal jéggalul yàlla mais dayo bi mu am Tiwaawoon nga xam yaayam soxna may Maymuna amul ba may wax ne amul man ñi ko xam ñëpp Ah, xam na jigéen bu ko gën amul jigéen bu jàmbaare bu ñemee liggéey am xam-xam bëgg bëgg maanaam gore bëgg boppam ku mel noonu euh, léeg-léeg moo tax danga naan dof du rus mbokk yi mooy rus loolu mën tax na pour ma jéggi loolu dafay jafe mais Cheikh Omar ci boppam tamit wolof day wax naan dafa am nit ñoo xam ne euh, euh, maanaam dañ naan kenn mënu koo tagg ba du tawte loolu day dal Cheikh Omar. léegi moom ay ay argument la yëkkati. ñu teg ko parce que nee na financier la neen ci wàllu koom. waaw da kaa jàng du ñàkk ay gëstoom moo ko may mu mën a xam loolu ba moom mu wax ko. Mhm. mais comme débat intellectuel la am na courage yu génn wax ko. Mhm. maanaam dafa wax teg mais wax yooyu yow yan argument nga mën a am pour dajj ko ci nii moom li mu wax amul. waaw léegi nag. Hmm, waxu Cheikh Omar boobu. Mhm. dafa am. lu ci ëpp solo mooy kan mooy Cheikh Omar ci boppam. Cheikh Omar kuñ xam la ci Facebook après xam ko ci combat ànd sambu jikko yi xam ko ci Walfadjri comme ni nga ko waxee. Euh, bu fekkente ne ku xam Cheikh Omar dëgg nga ñi koy topp. ci ñi koy topp ci YouTube wala nga koy topp ci télévision di ko seetaan te yàlla may la nga am xal wala ngay xalaat wala nga am dara loo gëstu di xam ne Cheikh Omar maanaam moom wax lu dul dëgg wala sas ay wax maanaam du dara ci moom moom loolu moom ak naan ndox la yemale niiwaa na nga dégg Cheikh Omar mu toog ci palaato ba jóg te waxu fa loo xam ne wóor na ko ne moom mi koy wax du dëgg nit yi toog xam ne am nañum xel xam nañ ni kii wowul dëgg mën naa la ci wàññil ñaar fukk fanweer ñeen fukki yoon yu nga xam ne trente quarante cinquante yoo xam ne mën naa ne la lii Cheikh moo ko wax soo ko tegoon tey laaj ko ko jox ko milliard du ko wax du ko du ko justifier du jeex benn balaa maa ñëw ci li mu wax nii pour pour ma wax la rek wax bu woyof la boo xam ne man sax euh, dinaa ko jaral na ma nag ma wax ci parce que maa ngi toog di ci wax parce que lu ma concerné la muy murit lu ma concerné la muy Sénégal lu ma concerné la mooy nit bu nga xam ne dafa ñëw dugg ci combat dëgg amaat beneen beneen xaru kanam boo yoraat ci biir mooy mën nga ñëw ci combat dëgg yi mën nga ànd ak ñii def lii wax ci réew mi mais après nag di nga mooy foo jekkoo ab micro rek di nga xas kilifa diine yi di nga leen doyadal di nga leen wàññi di nga leen jéem a euh, suufeel kilifa diine yi nag ñun lañ am parce que ñun ñooy seeni taalibe te Cheikh Omar nag suñu nawle sénégalais la duñ ko bàyyi tamit lu ko neex mu wax di sos guddi ak bëccëg suba ak ngoon euh, ñu ne teel bàyyi ko kon dañoo wax ne nit ki fu mu fulla bu mu am ba sosal la da nga war am fulla it maanaam rag weddi du du di tuuma du ragal waaye dindi tuuma la. Mm-hmm. léegi Cheikh Omar wax nga ma lan la wax loo nga xam ne du dëgg. Mm-hmm. Cheikh Omar bu ma la doon misaalal nit kooku. Mm-hmm. boo ko xamee xam ko ci tele maanaam nit ku ko gën a dëgër fit wala dàq ko incarné loo xam ne moomu ko maanaam gisuma ko Cheikh Omar jàngul arab jàngul alxuraan xam nga loolu xam nga ko boo ko dégloo ni muy waxee aaya rek nga xam ne kii jàngul arab jàngul alxuraan Cheikh Omar day toog ci Facebook nit ñi di ko seetaan mu ne day tafsir yow alxuraan jàngoo ko jàngoo arab nga ne da ngay tafsir parce que aspect diine ñëw na di fa incarné lu nga xam ne niveau mi yëggu fa moomu ko mhm. ah bu waxee ay yàq xamul dara ci alxuraan ah, euh, loolu dangay ngay ree ba sonn boo ko xamee boo boo boo boo boo ko sottee ci côté boobu nga ñëw ci côté français Cheikh Omar incarné na ne professeur la. donte dem na ba siiw nekk ci télé yi nit ñi professeur moo xam ne lii bu ko gaawul lijjanti état mën na fi jaar rëq ndigam mu ne noo man du ma professeur mais boo ko seetaanee ci génnam yi mu def ay armatan yooyu ak ci mbindam da xam ne moom ci boppam moo doon giñ boppam professeur dafa dem ba attanatu ko mu daw bi mu demee bay génn ci loolu bi demee bay génn ci nekkuma professeur maanaam dafa dafa joxe professeur gi ci loxo ndeyjoor bi nangoo ko ci loxo càmmoñ bi. mooy su taxawee incarné ne moom dafa am centre de recherche bu mu jiite ñu koy wax CRESFA. te CRESFA maa ngi ñaan ñi may seetaan nga bind ko ci Google ak YouTube amul fenn CRESFA bi am mu ngi Lyon ab benn école formation la. amul fenn ci àdduna moom maanaam bëgg a boppam bëgg a darajaal boppam moo ko jural mu créer ab ab centre de recherche bu amul daa di koy ne moom moo ko jiite. existé wul UPI sax dafa amul niveau jiite ay centre de recherche yooyu mais dara neexu ko ci lu dul euh, xaw ma foo essence de foo xaw ma traficat de personnalité moo ko neex loolu loolu rek loolu rek moo moo nekk ci xolam euh, bi mu paree foofu bind na ne moom dafay làkk onze langues bind na ne day làkk dix langues maa ngi koy défier ar français moom boolewuma ko ci parce que dégguma ko xaw ma ko ko dégg ko ko déggul waaye bu mu ci boole arabe bu mu ci boole anglais bokkul anglais. anglais barki démb bi mu dajeeg dàmbooj ci plateau euh, bi bi euh, kii doon def mooy euh, li ci dëkk bi. am na lu mu doon wax si anglais dégg nga ko moog dàmbooj nañ dem topp ko foofu man foofu laa xamee ne kii déggul anglais. nga ne dàm na ci waaw moom moom nee na ko yow yaay sama professeur anglais kaay tekki li ñu wax. ku dégg anglais soxlawul ngay wax loolu loolu moom bum ko si boole léegi nañu wax moom. <laughs> onze langam yooyu muy làkk fan la ko teg. maanaam yan la onze la na ko leeral man nag saaga wu ma ko waxuma ko lu ko naqari dama koy laaj. Mm-hmm. su fekkente ne déggul onze langue lan moo tax mu yàpp nit ñi li wax man damay laaj ay onze langue lan na ko ci neex. Mm-hmm. ñëw na fii mu euh, ñëw encore ne dafay dafay nu mu tuddee dafa liggéeyee euh, banque centrale. Mm-hmm. xam nga ne ku xam am xam-xamu liggéeyee banque centrale. paase nga ngay wax wax jii nga wax nii. ay xaalis bu nekk bitim réew. ñu dugal ko dinaa ci ñëw décortiquer ko ba wax la ba wax la nag ñëw xam-xamam ci li muy incarné lépp ni mu tuutee. mais dama ne. Hmm. banque centrale yaayam moo fa liggéeyee. Hmm. mais moom liggéeyu fa. défier naa ko. Hmm. moo ko wax te loolu amul. loolu amul lu leer nag laa la wax man Cheikh Omar euh, dama ko xam. liggéeyul banque centrale Cheikh Omar poste la la liggéeyee te poste bi mu doon liggéeyee papaam moo fa moo fa nekkoon retraité ñu jël ko. ci place papaam mu nekk fa mais moom liggéeyewul banque centrale te moom mi ngi toog nii di ko wax nii di te xam na ne moom li muy wax du dëgg xam na ne mbokkam yi ko xam ak nit ñi ko xam xam nañ ne moom day fen maa ngi jégul sax day fen ci mais waxul li mu wax amul mm-hmm. ah Cheikh Omar bëgg rëy rëylu ak bëgg darajawu àgg na ci wax ba dugal boppam am na benn bis ma gis ko mu seetaan mu seetaan ko muy tontu papa Mbaye Guèye si la mi nekk Daaru Moxti mm-hmm. ci ay wax yu ñu waxante mu wax ba mu yàgg mu naan man yàlla dama may ma infiltrer ay groupe bu franc-maçon leen nekk ci seen biir te xamuñu ko loolu ñett rek mooy am bu ko am loolu bu amee rek ñett rek taxaw na ci kanamu Cheikh mooy benn kon franc-maçon yi muy garaawal naan dañu garaaw dañu lii dañu laa ah garaawuñ kon parce que man jàpp naa ne murtasidiit yi wala isbu tarxiya kenn mënu leen infiltrer waxuma laak dama ne mënul nekk ñett yi taxaw laa lay wax boobu loolu mooy taxaw ma franc-maçon yi kon xam-xam bi ñu leen di giñ nekkuñu ci voilà Cheikh Omar ci boppam di franc-maçon nekk ci seen groupe yi wala waxul dëgg nekkul ci groupe yi benn day nekk ci groupe yi parce que franc-maçon la wala mu nekk fa te franc yi xamuñu amuñu xam-xam mënuñu détecter ku leen ku leen infiltrer wala boog wax lu dul dëgg neex ko comme ni mu ko tàmmee mhm. ñett yi mooy taxaw ñëw na fii ci euh, beneen waxtaan boo xamante ne Blaise gis naa ko mu ne Blaise Diagne da daan wax gémmiñ gi di tàkk moo ko wax. dina la xanaa. dafa ne la bëgg a ñàngal franc tax mu naan da doon wax gémmiñ gi di tàkk loolu c'est archi amul. Euh, wax na fi Blaise Diagne noddukatu jàkk la woon. tudd Galaye Diagne mu moo dindi turu boppam nekk franc-maçon tuddee boppam Blaise Diagne. te Blaise Diagne. avant muy dugg école tudd nañ ko Blaise Diagne yaayam moo ko may Adolphe Crespin mhm. mu jël ko batise ko tudde ko Blaise mm. Blaise Diagne tuddeewul boppam Blaise Diagne loolu wax naa ci beneen waxtaan bu nga xam ne ku dem ci Walfadjri bi mm. ma doon tontu Cheikh indi naa histoire bi yëpp ni mu demee woon wax naa ko loolu fan nga ko teg laaj waxuma la ban jàkka de mais fan la Blaise Diagne nekk jullit ci àdduna mm-hmm. bay nekk ba bay bay noddu ci jàkka rek loolu laal laaj mm-hmm. ba léegi waxu si te moom dafa xamul ne ay ay ay ay gis nga ay Raoul Diagne ay ñoom euh, Alassane Ndiaye alum mi ngay gis. Mhm. faatu Gueye Bafa ak euh, Toumani Ndiaye mi leen mi ñoo ko jur Toumani njaay mi ko jur. Mhm. mi jur Alassane Ndiaye alu rakku Blaise jaañ la mu mbokkal benn ndey. Mhm. mbokki Blaise Diagne ngi ci dëkk bii di ko seetaan muy saaga seeni maam di ko dam dëmb di ko wax wax ci bon yoo xamante ne tegu ko fenn ak sax di falsifier ay histoire yoo xamante ne. intellectuel yi yëpp a ko xam nit ñi am xel ñëpp xam nañ ko nga toog ci tele télé wu toll ne wala fajit di wax te te jëfam jooju muy def dafa dem ba man du ma comprendre parce que man waxoon naa ko fi benn jour wal fajiri naka la mën a accepter benn nit boo xamante ne moom du professeur. bu toogee ci télé bi. ñu bind waxewu ko wal fajiri. waaw loolu li ma la wax nii wal fajiri la ko waxee. non non jëmee ci. Euh, Blaise Diagne xëy loolu noonu waxewu ko Walfadjri mais dama ne la moom ci boppam. Cheikh Omar mooy nit koo xam ne gis nga amul benn xam bu nekk ci moom économique ay escale finance ak muy wax yëpp expert en finance day wax day soob man xam naa day wax lu ko neex. mais li mu wax jëmee waaw non taxawal dinaa ci ñëw dama bëgg tey dama bëgg ki may tey ma wax ma wax li may wax mu leer ci boppam rek. gis nga Cheikh bu amee lu mu mën. Hmm. xamalan la mooy wax lu dul dëgg. ak incarné loo xam ne moomu ko ay dayoo ci xam-xam loolu nag dafa am faiblesse ci loolu foo ko fekk mi ngi yoo yootu niveau yi xam-xam ak di yootu incarné loo nga xam ne ci alxuraan sunna nangam dafa araam lii laa moom du ustaas du imaam lan moo yoonam ci xaraam ak dagan expert en finance la na wax ci finance lu lu lu yeew mais mësuma dégg ci moom mu wax benn moo boo xamante ne da nga xam ne sax ci gëstu na ci dara lu dul euh, euh, lu mu tuddati intérêt dafa xaraam pare na ci loolu Walfadjri ci boppam nit nan ngay toogee di seetaan télé bàyyi Jóob wala pa bari toog seetaan télé Walfadjri Walfadjri dafa crédible mhm. ñu bind mhm. ci écran télé bi professeur Cheikh Omar Diagne mhm. te alors que moom du professeur léegi ci lay seetaan loolu nga ko li ñu koy wax ci nit ki est-ce que fiable na wala fiable moom nag dafa bëri ay victime dafa bëri ay victime mooy dóor yooyu muy def ak naxaate yi dafa bari ñoom képp dégg nga di la gëm loolu yu nga xam ne dara existé wu ci mhm. dégg nga man Cheikh su ma su fekkoonte ne li muy def noonu ma koy def mooy xaste rek man bu ma man bu ma ko xasee moom mooy jël bagage am dem ñibbi Mali wala mu dem feneen mhm. parce que dama ko xam ni ma xamee suma rëddi baaraam yi mais man intéressé wu ma li muy li muy wax na wax doogul professeur kooku su ma yoon nekku ci mais wal fajiri loolu maa ngi leen koy lancé nañ xoolaat bu fekkente ne normal na man ma ñëw wal fajiri ña may wooyee docteur Baara Ndiaye wala metre Cheikh Baara Ndiaye maanaam présenté ma en tant que ku qualifié ci wàllu yoon ki may seetaan jàpp ne man loolu la parce que wal fajiree ma ko wax te fekk alors que dara amu ca loolu rafetluwu ma ko vraiment léegi nag bu loolu lépp jàllee Cheikh Omar dafa wax garaaw mooy daf ne waaw loolay <coughs> dama la bëgg wax ne rek ku miin loolu la parce que wax na fii yoonu euh, nu mu sëriñ yi télégramme moo leen daan wariloo ba tey Papa Mbaye Guèye si la dévier ko fi génneen télégramme ba lay génneewul dara. Mm-hmm. gis nga nag Cheikh Omar moom loolu déranger wu mm-hmm. yàgg ci moom la nag <coughs> loolu noonu lu yàgg ci moom gis nga yow. Mm-hmm. yaay wax di wax ba mu yàgg nga nga am problème di fen fen benn fen. maanaam di yëg ci sa biir ne. ah vraiment sa biir di la yedd quoi vraiment li may def jaaduwul maa ngi wax lu dul dëgg xam nga nit yi sax dañ naan sénégalais buy fen boo xoolee bëri da koy xam mhm. Cheikh Omar nag buy wax dëgg moom buy wax dëgg moom booy xool bëri da ngay xam da ngay defe ne day fen parce que tàmmul wax dëgg moom lim xam mooy buy wax dëgg day defe ne day ndaw mhm. moom nay rëy rek nay rëy xam nga yow ay onze langue laay lakk ay yooyu moom loolu moo ko neex moom moom moom ku moom benn affaire moom xam naa ko mooy li may mën a gis nit ak li may mën a xool di wër di ak li ma dox lépp ci àdduna ku ñeme yàlla ak ñemee ay sos ñemew kàcc comme Cheikh Omar Diagne moom mosuma ko gis man benn yoon ci suma àdduna wallaay dafa dëgër fit ñeme yàlla maqaama moo ko jox mu ne ëpp naa ko boo xoolee mook sëriñ yii amuñu benn problème du sëriñ ak du du ab cheikh la kay ne nag wax ko ko seexal moom tuddul Cheikh Omar Diagne loolu judduwaale wu ko tudd ko ñi ko xam Omar Diagne lañ koy wooye moom moo ne léegi Cheikh la nag kan moo ko seexal kan moo seexal Cheikh Omar Diagne dégg nga am na seexam xëy na yëngal na yëngal yëngal parce que ku bëgg ay affaire u daayira la ay affaire yooyu loolu moom mooy activité am daanaka yim gën a kii mais gis nga daf ko def def def def dara doxul xam nga lu mu wax génn waaw léegi sëriñ yi kenn gëmatu leen amatuñ xaalis fekk moom la seexam doxal mu jàpp ne seex gee doxatu fekk seex gaa gi dox de gaa ñi seen seex gi bi <laughs> seex gi gaa ñi seex gaa gi dox de moom la seexam doxal mu ne seex gi doxal mhm. te yow barki dem université tubaab bi ju koy tabax ci quarante nga milliards nga dem Tiwaawoon gi benn guddi sëriñ baabakar Sy Mansour dajale plus de 3 milliards ci génn guddi ba TV5 di ci def benn reportage nga taxaw ne sëriñ si joxatuñ leen addiye quoi loolu loolu nit ku nit ku nite kuy wax ak taan ak sa xel di nga toog ci public ñëpp di la xool nga koy wax te ñi ngay waxale yow de maanaam lu paasewul ñetti fan après wala lu mu paasewul ay jamono yu néew nga gis leen ñu dajale 3 milliards mais 3 milliards mais loolu sëriñ àggu fa woon ak jamono toll est-ce que sëriñ Touba ak Alaaji Maalik bu ñu laajoon 3 milliards ci seen jamono dinañ ko am kon yëf yi dafa yokku mais wàññikuwul yaa ngi dégg. léegi ci débat bi léegi nag ci li mu wax nii. que boo dafa wane ñett. waxul waxu non dafa wane ñett rek non waxuma waxul dëgg de. Hmm. man dama am benn bis ma ne woon Cheikh Omar Diagne. Hmm. xaw ma yow xaw ma Sandio gi ma kan. xaw ma benn femme bu ma invité wu noonu ko man waxu Cheikh Omar bëgguma di ci wax parce que dafa mel ne dama ko amal en. Hmm. wala daf ma gêné wala dafa am lu ma seq ak moom man Cheikh Omar ak moom dara yàlla na ko yàlla may jàmm. lu mu bëgg bu dee lu baax yàlla na ko am aw ma ak moom benn problème man. man aw maa ak moom jafe-jafe. yi muy jëñ suñu kilifa yi. Hmm, mais Cheikh Omar dama ne ko woon Cheikh Omar mbiram jarul wax xam nga nu muy demee mun a mën ko nit la koo xam ne loolu nag en privé laa ko wax ko wax ci public bëgguma woon. wax nii ci kon bu ko wax ci public. non non dama non non hmm. dama ne la loolu loolu booba jamono laa wax. Hmm. ëpp na huit mois ci ginnaaw mooy temps yi ñu doon wax ma ne wax ci. ma ne ko Cheikh ci wax parce que dama ko xam aussi nit la koo xam ne da nga koy bàyyeeg làmmiñam xam nga bëy wi Euh, da dañ ko bëgg a rendi benn paaka rek moo am ci dëkk bi ñu wër wër wër paaka bi gisuñu paaka bi ñu ne ah, kon de tey bay wi moom rëcc na wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko mu dem béy wa béy di fecc far sulli paaka ba borom gis nga fenkat da nga koy bàyyeeg làmmiñam Cheikh Omar nee na wër réew mépp expert en finance la wër réew mépp borom xam-xam la dafa gëm yàlla day lii lay laa bàyyi kook làmmiñam làmmiñ bi la yëkkati ba nga jóg boo fekkee yëkkati wala ci dëgg làmmiñ boobu moo lay daaneelaat ba sa mbir leer nañ dèjà li mu wax nii rek xaw ma ku ko nawoon te am xam-xam ci wàllu dara xam nga ne kii moom ah yar naa tey ci ay mbiram mas naa ko dégg wal fajiri mu naan yooyu eh, sax garaaw Cheikh Omar ay yi muy wax yoo xam ne du dëgg mënuma ko wàññi parce que émission Cheikh Omar wax fa nga xam ne même ñun toogal plateau bi sax dañuy xaw a def nii dañuy xam ne kii waxul dëgg naan ay waa APR yi ah dañuy sàcc xaalis def ko ci ay ay néeg ba xaalis bi nu mu ko waxeeti woon sax xaalis bi day kole ah ñu wut ay kilim di ko taal xaw ma <laughs> loolu way lan jël xaalis def ko ci néeg nee xaalis bi day kole quoi day kole ba duñ ko mën a kolerti après la kole rek. ban gëstu xaalis bi kole xaalis bi kole mooy lan. du ay mën naa waaye man dafa egg fa sa bët eggul rek xanaa kon banque yi moom chaque jour kon xaalis ba kole fa ñi ñi woon nit ñi nag kaay leen di di décoller ko loolu mooy lan. mooy wax kat day wax ba la mu tooge ne du bii du sama bos moom loolu la koy dal bu génnee plateau bi rek dina xam ne déconné na ko xam nga euh, léeg-léeg nag nit day mën dara ba mu yàgg nga juum ci Sadio Mané ku ne xam na ne mën na football mais keroog final bi dafa raté suñu penalty Cheikh Omar bii mu dóor moom bi koy dóor dafa am ay roq yu mu fàtte mooy dafa wane ne xamul dara ci tukki musul tukki dafa wane ne xamul dara ci xaalis dafa wane ne xamul dara ci système banque su mësoon tukki tuuti rek dina xam ne jëlee ay ay milliards comme ni mu ko waxee bitim réew dugal ko ci réew mi jox ko sëriñ si bu fekkente ne ci saak lañ ko bëgg a def plus de dix mille euro nit mënu ko jaarale ci ci aéroport dugg Sénégal parce que boo xanaa ay milliards kenn du ko def ci poos da nga koy def ci saag dinañ visiter saag bi ah fan lay jaar ci kii bu fekkee ci compte lañ koy dugal xamul ne loolu nan la nan lañ jëlee ay milliards di ko dugal ci compte Europe di ko virer compte moom bu amoon xam-xam tuuti ci wàllu xaalis du ko def su xamoon tamit système banque système banque yi ni ñu ni ñu organisé loolu du ko du ko ŋànc làmmiñam man lu tollook euh, daanaka daaw am naa ko nga xam ne mën naa ko tudd ku sant ku sant Jóob hmm? dafa ne ma damay liggéey ak benn tubaab da nga amoon lu ñu seex rek garaawul sax dafa ne ma woon damay liggéey benn tubaab boo xam ne mu bëgg mun ma mu ne ma nekk jëkkëram su ma su amee man ne mu ne ma su ma ko ma ne ko soo amee mu ne ma su amee ma jëndal la kër Dakar yaa ngi dégg yàlla mi dara tawul loolu am mu ne ma wëral kër ma ànd ak ku sant Njaay koo xam ne moo nekk directeur commercialu Seneweb ñu ànd di wër kër ba ma gis kër boo nga xamante ne bi ñu évaluer lépp dafa nekk 63 millions mu wiire ko xaalis boobu man mënuma ci jot dañ ma jàpp dugal fii génnal fii dugal fii génn damaa mujj ma ne ko wiire waatal xaalis bi mu demaat sa compte parce que ñii duma xaalis bi du ma ko jot 63 millions laa la wax yaa ngi dégg mm-hmm. maanaam yow boo jékki-jékki woon xëy xëy rek yow benn benn somme bi jógee Europe dugg sa compte ci ngay xam ne yow ah xaalis du ay caaxaan. fi àdduna la yaa ngi dégg fi àdduna toll sax yéegu ko. Mhm. moom li wax maanaam man problème laa am mooy yaa ngi naan gëstu na jàppoon naa ne nag vraiment man yàgg na maa xam ne xamul dara mais jàppoon naa ne loolu loolu ay waxu garam place la mhm. maanaam loolu man xelam mi ko gëm ba koy nangoo génne man loolu xel moomu man jàppoon naa ne vraiment. Cheikh Omar defoon naan dépassé na loolu. dépassé na boo xamee moodu-moodu yi xam lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy euh, blanchiment de l'argent di nga ko gii ñeneen ñu dul ay moodu-moodu yi blanchiment de l'argent est-ce que am na Sénégal sax laay wax. xam loolu boo doon boo ko doon xool da ngay dem ci ay paradis fiscaux yi. dégg nga ku mel ne ay dëkk yooyu Malta. ah ak liñ ci saa. mooy dëkk bi nekk wetu wetu wetu wetu. Euh, euh, nu mu tuddati fi ñuy jaayee mbase yi Autriche. dëkk boobu noonu. Mhm. dégg nga. wala kii nu mu tudd il il il de Caïman Caïman saaru dëkk yooyu. boo bëggee ay Canaries yooyu dëkk yooyu ñoom ñoo am ay traf ay ay ay ay blanchiment de l'argent ñooñu ñoo ko am blanchir de l'argent du affaire bu simple nii boo xam ne benn moodu moodu jóge fa fële te noonu ñu ko waxee comme mu ay moodu moodu ñuy dugal ay sëriñ jël période bii la mel ne été période bii la période bii lay jeex. après nga demaat ci sëriñ si sëriñ bi ne ko léegi yaa moom cinq cinq cent bi te dafa daaneel boppam mooy nee na sëriñ yi ñi ci ëpp ay sàcc lañ waaye léegi ab sàcc boo demee Europe dugaloon ko deux milliards ci compte bi boo ñëwee mu sàcc ko du la ko jox. mais amul loolu amul de devise boobu di dugg. donc am na saa ñu ci tudd ay médicaments tudd ci ay oto yoo xam dañ koy lewal. Mhm. pour indi ko yu yu bari. mais wax jooj tam noo ko noo ko déggee parce que bu dee ci côté xaalis bi li ko mën a dajji sax moom peut-être bari na parce que bu nee junni milliards mooy dugg at mu ne ci réew mi jugee bitim réew. xam nga lu ko ci ah, nga ko. Mhm. mooy lan lu ko ci mooy dafa am haine ak soxor gum am ci comité mouridisme tarixa yëpp sax parce que moom dafay wax ne toujours taalibe Baay Ñas la te moom du taalibe Baay taalibe Baay au moins dana am xam-xam. taalibe baay au moins di nga respecté sa parole ba booy wax. ci dëkk ah, non non non du taalibe Baye. Ah, taalibe Cheikh Ibrahima Niass hmm. du ko man gis naa ko muy xas waa njabootu Baye Niass. gis naa fii waa kër baay Niass def benn wasifa mu taxaw lum leen waxul ci àdduna amul barki démb bi fi Cheikh Mahi Niass ñëwee dem na fa man maa yow ñoo ànd dem naa ci Cheikh Mahi siyaare ko moom mas nga ko gis mas nga gis moom mu ànd ak benn njabootu Baye Niass buñ xam. loolu dafa yom man bu ma neexee suba ma ne laayeen la kan moo si man dara mais du ma mais doo ma gis a xalifa laayeen yi may toog ak ñoom parce que mënu ko parce que foofu noonu moom xam naa ne man ni ma gisee mooy bu nekkoon taalibe bàyyi xanaa buñ gàmmoo wala xalifa bi ñëw bu dee ngëm bi mi ngi ci moom mais ba ci ngëm-ngëmam sax day wax lu dul dégg parce que taalibe bàyyi laa wala fan lekk taalibe bàyyi hmm? taalibe bàyyi ku ciy wax xam xam ne au moins am nga loo toogaale bàyyi ñas am na lu mu leen di jàngal yaa ngi dégg waa xoola taalibe bàyyi hmm. au moins di nga respecté sa kàddu ba nga xam ne boo waxee dara ci penc mi au moins di nga fexe ba loolu nekk dëgg te Cheikh Omar dama am benn problème bu ndaw mooy moom toujours day incarné ay xam-xam ay dama toll fii dama toll fa xam naa nangam xam naa nangam mais borom xam-xam pur warul bañ wax dara ci penc Cheikh Baara Ndiaye seetaan la ne la li nga wax du wérul da ko weddi nga gën leeral ko ba mu xam ne li nga wax wér na loolu borom xam-xam da ko war di def au moins nga def ko benn yoon ci sa àdduna mhm. borom xam-xam war na mën a wax benn wax nit yi am am ci ay jiixi jaaxa mooy weddi wuñ ko mais nag leeru leen nga génnaat leeral man toog naa telewal fajiri ma ne ko Blaise Diagne mi nga wax ne moo tuddee boppam Blaise Diagne génnal nga leeral saaga wu ma la nii laa ko waxee saaga la xasuma la accusé wu ma la dara mais li nga wax loolu wérul leeral ko waxu ci Cheikh Omar mën naa wax ne juróom fukki yoon gis naa nit yi di ko interpréter ci ay mbir day bàyyi mu jàll loolu du boroom xam-xam borom man man su ma demee ñëw toog fii wax dara nga takk say weer rek ne ma amul te nga nekk ku ko jar dinaa génn ah leeral ko même boo ko jarul su ma amee occasion benn yoon dinaa maanaam nit moo nit moo mënul sax wax dëgg ba noppi nit yi weddi ko muy bàyyi noonu te Cheikh ma lu mu wax gaa yi buddi day jàllaa ci leneen jaar na ko fi ci telegram yeeg jaar na ko fi ci yu day jékki-jékki ne mes ba mu yàgg mu dellu si mais est que yu mel noonu dañuy daaneel nag ah bu bu ko nit yëkkatee wax parce que bu doon nit da ko wax jëmee ci njiitu réew mi wala mu doon ko ci kilifa yi nekk ci wàllu politique te yor réew mi dinañ ko woo ci procureur laaj ko say kàddu yow fan nga ko teg parce que ay blanchiment de capitaux blanchiment d'argent ak euh, yooyu noonu maanaam lu yoon ay la te am na fi ay kuréel yu koy xeex ci nag dama yaakaar ma dama yaakaar ne man rab yi mu rab yi muy faj moo koy moo koy def yii daal moo koy mooy génnee saraxu fen kon day kii. non foofu laay yem moom xam na man xam naa léeg rab yi danaa kan danaa génneel saraxu fen mu génne ko. parce que koo xam ne weer wane nga fen benn fen loolu. as gor mënu ko daal. jotul mais en tout cas daal en tout xam na ne xamul tukki dama ci fàtte benn xamul xaalis xamul banque waaye xamul sëriñ si. mosul gis sëriñ si xamu leen man Cheikh maa yi ñas mi ma gis. ku ko mën a xool daan ko nga woo ko woo ko téléphone naan ko léegi ñu diil maag yow ko ma dugal lii nga génne lii wala nga wax ko imaam cheikh hmm? walla cheikh wala wala wala cheikh maa yi euh, kii nu mu tuddati euh, cheikh maa yi siise nga toog ak ñoom xool leen nga xool leen ak magnétisme bi ñu yor ak charisme bi nga ñemee nekk Modou Modou alors sëñ bi dama bëgg ñu diil damay dugal lii nga jox ma lii ma jox la xalaatuñ ko. nit ñoo leen di wër ak 100 million di jooy pour jox leen ko kooku yàlla bu la mayee loolu mais teggil na la ba pare dafa am la dafa am lu am mooy kaay ma wax la benn affaire bu ndaw moom dafa am lu mu xamul hmm. mooy gis nga sëñ Muntaxa mi ngi tabaxlu université quarante milliards nangam pourtant sëñ mun Muntaxa jàngul doomam jàngatul ka université boobu lan moo tax mu koy tabax bu doon intere rek ak bëgg xaalis du ko def da koy def ci poosam wala mu jënd ci ay oto wala mu def ci leneen mais daf ko def pour tabax humanité bëgg xam-xam des ci àdduna. est-ce que am nañu compte bancaire sax yi nekk seen tur man yooyu jar naa laaj Serigne Saliou uh-huh. bi muy lu bi mu génnee dix milliards ne woo leen ma Ablaye Wade woo leen ñu mag ci yoon wi ñu ñëw mu ne fukki milliards a ngi nii dama bëgg ñu defar mbeddi Touba yi. assainissement Touba assainissement mbeddi Touba ak tali yeeg assainissement bi. Uh-huh. booba noonu Serigne Saliou def na dix ans yoo xam ne mosul génn buntu kër. nit ku dem ba génnatul sa buntu kër bu ñuy defar tali kan moo tax nga koy defar askan wi est-ce que mas nga gis benn yoon ñu ne xalifa sàngam sëñ Babacar Si Mansour ma ngi ci tele ba wala ma ngay woo diw soxla boppam la koy wax yow mësoo xam soxla xalifa sëriñ yu mag yi nekk ci Sénégal mësoo ci xam soxla kenn mësoo xam ba xam dañu manqué oto wala seen doom dafa manqué oto wala dañu bëgg dañu bëgg nangam amuñu benn yitte bu ñuy gis jaam ñi te moom bu amoon tuuti kurus wala mu xam dara ci yàlla dina xam ne yàlla am na roq bu gën ay blanchiment de l'argent mais triceurs yi du ko xam ku sëgg ci jigéen ñi doo ko xam ku dul wax dëgg doo ko xam boroom xol bu setut nga xam ne boo gisee yàlla di teral ay jaam da nga ciy am ñukku ñukku mhm. ñooñu duñ xam ne yàlla dafa am àjjana ju muy jox nit ñi ci kaw suuf ñoom toujours safara ba la leen di bàyyee loolu moom moo ko dal mais gis nga man nekkoon na maag sëñ Sidi Mokhtar tabax na jumaay Masaalikul Jinaan pili da ñaata milliards matul vingt jumaay tubaa mu defar ko sëñ Sidi Mokhtar ba ni muy faatoo néeg bi mu nekk seng la boo dajji woon néeg bi di ko jaayee cinquante mille doo ko ci am amul clim amul ventilateur wantaay la daan yor toog yor course gi yor wantaay gi toog te moo defar masaalikul naan bu doon looloo mu tabax sato tey demal nga xool sëñ Sidi Moxtaar mi tabax masaalikul jinaan vingt milliards def yor xaalis di def ci diine ji nga koy gis tey ji bi fi bi fi affaire mbënd mi amee ñaata milliards la joxoon demal nga xool ba xam doom yi sëñ Sidi Moxtaar yi ñoom ay riche lañ wala riche ñu amul doom ju riche soxna May Mbàkke mi nga xam ne suma yaay la man moom la yëkkati woon may ma ko ma xam ko man ba fii may wax ak yow ci single la nekk nekkul ci terrasse est-ce que sëñ Sidi Muxtaar sax am na doom ju étage demal nga xool yaa ngi dégg ñooñu boo leen xamul gis leen nii da ngay yaakaar ne euh, da ngay yaakaar ne maanaam moom munul gëm ne xam nga boo amee ay taalibe mënuñu laa jox cent yu dëgër